jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 ñoo ngi leen di nuyu suñu mbokk auditeurs yeeg euh, suñu mbokk auditrices yi mbokk yi nag ñu daal di dellu siwaat euh, ci seen émission pencum réew mi. muy émission boo xam ne dafay am ci rajo réew mi FM euh, ngeen di si ànd ak euh, Abdou Khadre Seck du jaawo Diallo moo nekk ci wàllu machine bi euh, pencum réew mi nag di dalal ay kàngam yoo xamante ni tey seen xel na jëm ci wàll wi ñuy faral di waxtaane lépp loo xam ne ñeel na actualité tey nag ñoo ngi dalal Fossar Souané moom responsable politique APR la bokk ci cadre yi waaye nag ma ngi dëkk fi nga xamante ni mooy ci département bu Goudomp Euh, commune bu Karantaba waaye tamit euh, am na base politique fi nga xamante ni moom mooy euh, Thiaroye ak fi nga xamante ni moom mooy Ziguinchor loolu moom du ñàkk mu ñëw indil ñu si ay leeral nan la demee Fossar Souane maa ngi lay nuyu. sëñ Abdou Khadre maa ngi lay fay di la nuyu di di nuyu sa. auditeurs yi tamit euh, auditeurs yu Rewmi Rewmi FM. Euh, Fossar Souane am nañu euh, mbégte ci invitation bi ak wisi gi ñu daal di commencé waxtaan wi nag li nga xamante ni mooy fan yi nemmeeku nañ ko bala ñoo ñëw ci découpage administratif bi dañuy wax ci fichier électoral bi fichier électoral bi wut nañu ay experts internationaux ñu ñëw càmbar li nga xam ne moom mooy fichier électoral bi. Euh, ndax opposition bi ak société civile bi dañoo yàgg sàkkuñu ñu audité fichier électoral bi mais coow li mooy bi ñu ko audité ba pare euh, gis nañ ne opposition bi ñoom euh, ba léegi seen xel dalul nee nañu du fichier boo xamante ni bu fiable la yow nga bokk ci ci mouvance présidentielle lan moo ci saxalaat ci loolu. waaw jërëjëf suñu Abdou Khadre maa ngi nga baal ma nuyu nuyuwaat auditeurs yi bu baax. di di leen sargal di leen ñaanal ci di baalu àq tamit ci weeru koor gi ñun ñu nekk di ci di ci waaj génn nii waaye di ñaan yàlla rek yàlla nangul ñu suñu koor yàlla jéggal ñu tamit euh, yàlla may ñu jàmm dool di xéwali biir Sénégal euh, di nuyu tamit kilifa diine yëpp nekk biir Sénégal euh, di nuyu waa Thiaroye bien entendu ak surtout waa Karantaba département de Goudomp ah gis nga mbirum Abdou sëñ Abdou Khadre mbirum politique dafa doy waar. tax ne dafa doy waar c'est que doomi aadama ci boppam moo def politique ba mu doy waar ndax opposition bi dégg ngeen ko at yu wees yi yëpp ñuy wax waxu fichier électoral ñu ne fichier électoral bi baaxul ñu ñaan pour que ñu def audit fichier maanaam boo dee déggee audit maanaam ñu cambar fichier bi xool ndax la ca nekk baax na wala baaxul parce que déggoon nañ coow lu bëri bañ génne ci élection euh, présidentielle 2019 ñu doon accusé naan euh, defam ay doublon maanaam da ngay ñëw fekk ñaari Abdou Khadre ci biir ci bi wala ñaari Fossard ci euh, Souané ci biir fichier bi ñoom ñoo doon accusé naan am na ay xale yu ndaw yoo xam ne amuñu 18 ans lañ doon voté. ay mineurs loolu yëpp dégg nañ ko ci. ba tax na ñoom si seen bopp ñu euh, ñaanoon pour que ñu defaral ñu def benn audit comme li ko defee woon tamit 2018 ñu defoon fiche benn audit ba ñu génnee ci élection législative yi. maanaam élection député yi yàlla def président Macky Sall am ci majorité ñu ne non dafa am problème fichier waaye ba ñu càmbaraatee fichier boobu auditeurs international yi dañoo ñëw nee ne ah 98 virgule poussière lépp pour cent mooy wan ni fichier bi baax na ñu ne fichier bi baax na. ñu ne noonu lañ demee élection présidentielle ba ñu ëllëg si ëllëg si tamit ñu waxaat même chose ñoo taxawaat naan noon nañ cambaraat yàlla def na ñoom si seen bopp ñoo wax nañ dem uti ay experts yoo xam ne nekkuñu ay sénégal ñoom jëli leen bitim réew waaye tam nee nañ gouvernement Sénégal tamit bu mu fay experts yooyu nañu ut benn réew wala benn agence yoo xam ne mun nañu jàppale ñoo ñu fayal ñu experts yooyu pour que suba ñu bañ a ñu naan euh, gouvernement Sénégal moo le moo leen guerre ba tax na USAID maanaam américain yi Euh, taxawu ci dem uti ay euh, experts internationaux ñu ñëw càmbar Sénégal càmbar euh, audit fichier Sénégal fixé règles yi nee na ñoom nii nañ dara liggéey ñun ñëpp muy opposition ak majorité ñëpp d'accord ci naka naka nañ naka nañ dara liggéey ñun ñëpp ñu d'accord ci lool ku nekk jox ci lim ci xalaatam ñu boole xalaat yooyu ñoom ñu tënk loolu dem liggéey ba ñu liggéeyee tamit ñu càmbar fichier bi yëpp xool lépp ci ordinateur yi xool ko ci këyit yi ba. yàlla def na ñu am seen conclusion taxaw ne tey fichier bii ñu am Sénégal mooy fichier bu baax la fichier bu baax la fichier boo xam ne nee nañu fiable na waaye fichier bi tamit ah, lu crédible la donc ah opposition boobu doon wax ne ah, di ko euh, di di di di ŋàññi suñu fii di ko ŋàññi tey ñoo dellu dellusiwaat encore nee nañ ñu seen liggéey baaxut kon ñun. ah ñu jaaxal trop. jàpp nañu ne rek mais yi est-ce que amul yenn point yu ñu soulever que ne am na gàllankoor ci biir fichier bi. déedéet xam nga ñoom euh, opposition bi dañoo dañoo dañoo bëgg a tuur lëndëm. Euh, Sénégalais yi seen conclusion yi. waaw seen conclusion yi ñoom dañoo def ay recommandation boo déggee recommandation su ma ko mënee wax ci olof maanaam ay ay digleel. ay digle nañ nañ def euh, mbir mi nañ def pour lan pour gën Euh, euh, yombalal liggéey bi waaye tamit pour que suspicion bi am ñàkk ñàkk wóolante bii am diggante opposition ak majorité ñu mën a mu mu mën a deñ moo tax ñu joxe ay recommandation recommandation benn rek laa ci jox par exemple ñoom dañ ne direction général des élections euh, dañ ko war a def mu autonome par exemple ñun ñu ne leen loolu jaru ko est-ce que direction générale des des élections yéen benn ko càmbaree est-ce que gis ngeen ne benn gàllankoor ci seen liggéey walla loo xam ne dafa ñuul ci seen liggéey ñu ne déedéet ñu ne waaye lu tax ñu wax leen loolu mooy dañuy bañ suba waa opposition bi di leen accuser di ñaaw njort ne yéen dañ da ngeen a moom waa direction générale des élections yéen nañuy liggéeyal pour que loolu bañ a am ñu def direction général des élections ñu def ko de manière autonome waaye amul fenn ci ci ci audit bi bu ñu def fu ñu ñëwee taxaw ne lii de baaxut ci fichier bi. mais mais euh, Fossard bi ñu koy bi koy euh, audité mhm. est-ce que opposition bi amoon nañ fa ay représentants. waaw ñëpp euh, amoon nañ fa représentant bu ñu amul woon ñoom seen bopp kon boobu jaay jooy nañ ko jooy nañ ko bu yàgg kon déggoo leen depuis boobu ñoom ñu ngi jàppoon ni euh, ñu koy waxee euh, jàpp confiance comme xale li ñu koy waxee ne fichier bi dinañ taxaw ne fichier bi baaxut yàlla def na yàlla àtte nañu ak ñoom. Euh, fichier bi ñu wane na fichier bu baax la ñoom ci seen bopp à chaque fois chaque semaine chaque semaine équipe euh, experts yi day ñëw def leen compte rendu lan nañ def semaine bi ñan nañ dajal nakk nañ ci wax lan lañ fa tënk et cetera chaque semaine opposition bi dinañ leen rendre compte dinañ rendre compte tamit waa maj waa waa pouvoir bi tamit donc transport ak waa ak société civile kon loolu transparence bu am solo moo fa nekk donc ñoom tey Euh, bu fekkoon dafa am ay euh, euh, gàllanko lënt lënt ñoom ci boobu nañ ko doon wax te boobu yaakaar na ne ñoom dañu jàppoon ne lépp yemb na liggéey bi mu ngi demee ci yoon waaye tamit ci lu ñu jéem a tuur lëndam xelu Sénégalais yi waa opposition bi mooy taxaw dégg naa leen ñu naan waaw am na ay cent 500000 électeurs yoo xam ne dañoo dañoo maanaam dañu voté fu ñu dëkk. voilà maanaam dañoo def ay transfert ak yooyu. waaw loolu jaarale ci ay euh, li nga xamante ni mooy certificat de résidence ak. ay ay yu mel ay extrait de naissance. Mhm. waa xam nga certificat de résidence xam nga man tamit maa ngi euh, su ma fekkee ne man euh, dama dama damaa dëkk Dakar waaye bëgg jàppale nit ci sama gox. bu ma ba ma ba ma sokki maanaam par exemple Casamance mhm. mais mën naa def sama transfert. comme def naa ko man mii sax def naa ko jël sama transfert jëlee ko Caaroy Gaar yóbbu ko yóbbu Karanta ba parce que sama sama la parce xam naa lu ma ko def parce que jàpp naa ne sama voix foofu lay gën a compter ak leader yi fa nekk foofu laa leen gën a mën a jàpp ñooñu laay gën a mën a jàppale tam ci seen ci seen i liggéey donc moo tax ma def def transfert Sénégal fii Dakar par exemple boo xoolee ñi ci ëpp fan a jógee ci dëkk kaw yi nañ jógee donc l'essentiel ñooñu. bëri na ci ay Sénégal yoo xam ne dañuy bëgg élection bu jotee ñu jël seen oto dem voté ji euh, euh, dem voté ji seen dëkk tey loolu moo am ba ñu ngi dégg noonu naan 500000 mais 500000 yooyu yëpp ay sénégalais lañu sénégalais yi ak kan yoo xam ne comme niñ ko waxee euh, jël nañ seen filiation jël nañ seen empreinte digitale ba tax na tey kenn mënul tam la naan. waaw Sénégal 500000 euh, yooyu du ñu ay du ñu ay du ñu ay sénégalais. donc ñëpp ay séné ay sénégalais lañu. d'accord léegi léegi euh, Fossar euh, opposition bi ñoom tamit daan ñuy wax ne auditeurs yi amuñu woon accès ci logiciel parrainage bi ba pare tamit nee nañu ñoom. experts yi dañoo bëggoon a ñi nga xamante ni tey ñooy ay ñooy conseil constitutionnel ñu daal leen koy gàntal loolu tamit est-ce que du loo xamante ni tey lu jaadu la su dee lu am la. Euh, yaakaaruma ko parce que. yaakaaru ne am na. yaakaaruma am na parce que bu amoon euh, ñoom dégg nga leen bu yàgg comme lu ma la ko waxee rek euh, ndax expert semaine bu nekk dañuy rendre compte position comme majorité bu amoon instant boobu da nga leen dégg ñu yuuxu ko donc dafa amut ñooñu dem nañ dem nañu saytu mbirum parrainage bi waaye donte sax. man jàpp naa ne ñooñu loolu bokkul ci seen liggéey ndax ñoom fichier bi lañ leen sant ñu ñu ñu saytu ñu say euh, saytu mais pas le processus électoral parce que dafa am ñaari mbir dafa am audit du fichier dafa am processus électoral donc fichier électoral bi ñoom moom lañ leen sant ñu ñu saytu donc ñoom bu ñu demee sax di xool pare parrainage bi loolu sax du seen du seen liggéey voilà mais euh, mais taxul ñu bàyyi leen ñu xool ñoom seen bopp xoolal ko seen bopp waaye tamit def seen recommande nañ seen recommandation waaye mënoo def recommandation ci loo xam ne saytuwoo ko donc pour wax ne ne opposition bi li ñuy wax teguwul ma yénewul yénewul maanaa ñoom euh, waa waa waa jublu si li ñuy wax euh, rus gàcc moo leen gàcc moo leen jàpp. ah jàpp ne yow opposition bi dañu jàppoon ne euh, experts internationaux yi bu ñu càmbaree fichier bi dañuy wax ne fichier bi baaxul su ko defee ñu mën a wax ne élection 2019 yi jaarul yoon. voilà exactement ñoom dañoo bëggoon na décrédibiliser tubaab bi naan décrédibiliser. élection président Macky Sall 2019 boo xam ne da leen làmb làbbali làbbali yu am solo ba tax na ñoom ñu bëgg a andiwaat situation insécurité instabilité biir ci biir dëkk bi ba tax na su boobaa eh, auditeurs yi bi bu ñu ñëwee ne fichier bi baaxut par exemple ñu dellu siwaat ñëw taxaw ne waa kon Macky Sall wàcc comme euh, euh, sëñ boobu muy Abdoul mbay lu mu doon jéem a tànt def xam nga koo xam ne yow mooy ci euh, parrainage bi ci parrainage bi ñoom fan yi sax dégg naa ko mu naan euh, ci mbirum parrainage bi waaw naan. Euh, nañ waa CEDEAO bi waaw nañu na Macky Sall dafa war a démissionner kii kii yooyu. xam nga waxu daanu daanu sareet moom ci kilifa bu toll noonu waru ko ndax nit ki da ngay responsable ndax bu nee nga yëkkati kàddu yu mel noonu ci dëkk bu mel nii ak situation yuy génn mooy yow da nga bëgg yee fitna. te fitne boobu boo muy moytul mu këpp ci boppam. moom mais mais mais Fossar Souané euh, ci élection yooyu yi ñu génn euh, opposition bi doon nañu wax ne bëri na ay mineurs yu vote ci yenn gox yi ay ni am na vidéo yu doon daw tamit ak ay photo yoo xamante ni gisoon nañ ay xale yu doon voté. Mm-hmm. xam nga loolu yëpp. Euh, yàlla def loolu gis nga loolu auditeurs yi gisuñu ko ci fichier bi. non heureusement yàlla alhamdulilah rabbil alamin ndax bokk na ci lu leer lu ñu bind auditeurs yi lu ñu bind mooy lan képp ku nekk ci fichier bi majeur nga. te kuy majeur na tamit bul fàtte ne bi ñu fa nekk sa tur ba fa nekkee jël nañ sa juróom euh, fukki baaraam yépp jël nañ sa empreinte digitale maanaam keneen mënutoo ku utiliser ndax doomu aadama ku ku nekk euh, benn benn benn empreinte rek nga am. bokk ak kenn ci àdduna bi donc yàlla def na alhamdulilah fichier bi bañ ko saytoo képp ku fa nekk nee nañ am nga plus de du am nga plus de du euh, am nga 18 ans. Euh, euh, ak lu ko ëpp donc sant yàlla euh, image yooyu ñu doon wane di image yu li ñu ko doon waxee propagande di image yu manipulation bu opposition boo xam ne da ngay perte rek ngay jéem a ut fu ngay ay lay wala fu ngay wéeroo pour bañ a pour bañ a pour nëbb sa sa gàcc gàcc boobu nag tey moo ne fàng moo ne fàng ndax sonoon nañ Sénégalais yi créé fi ay tension créé fi ay ay stress Sénégalais ci après élection yi yàlla def na tey au niveau international ñoom ñii woote woon sa ñaan ñaanoon ñu def audit bi tey auditeurs yi ñëw nañu ñoom ñoo wax ne nañu wuti ay auditeurs lañu nañu ñoom ñoo waxoon ne. bu leen gouvernement bi fay. kon Sénégal fayul euh, fayul auditeurs yi. fayu leen gouvernement Sénégal fayu leen mën ko waxee rek am waa USAID maanaam bànqaas euh, coopération bu euh, États-Unis moo fay auditeurs yi. comme ba xaalis Sénégal demu ci auditu 2018 bi tamit. xaalis Sénégal demu ci ndax Union européenne ak Allemagne ñoo fayoon boobu tamit auditeurs internationaux ñu ñëw saytu boobu tamit ne fichier bi baax na kon Sénégal fii kenn mënu fee sàcc élection ku ko wax da ngay nax sa bopp wala dangay ngay jéem a nax ndax bu doon sàcc eh, mënoon nañ sàcc sélection Abdou Diouf du fi jóge bu doon sàcc élection am na Abdoulaye Wade du fi jóge kon boog muy direction générale des élections muy euh, euh, euh, Sénat ak yooyu mënuñu sàccal kenn fii biir Sénégal ndax presse baa ngi fii waaye itam am nañ démocratie bi toll nii ah nit ñi xam nañ fii même ci biir opposition am nañ ay experts yu fa nekk ñoom xam nañ bu doon sàcc dëggantaan am na ñoom duñu bàyyi mu jàll. kon euh, nit ñi nañ delloo seen nañ delloo si seen xel xam ne réew mi du lu ñuy foowee fu ñu toll Sénégal àdduna bi fu mu toll tabax Sénégal moo war. ku nekk nga defar sa programme dem waxtaan ak sénégalais bu ñu la wóoloo ñu jox la seeni euh, nga mën a li nga mën leen a liggéeyal waaye fu mu toll nii depuis 2012 Sénégalais yi nag Macky Sall nañ jox seen kàddu moom nañ jox bopp ah di sant rek di gërëm parce que élection yi ñu jëm yi tamit ñu ñaan Sénégalais ñu gën ñoo jàppale ndax président Macky Sall am na jéego yu am solo ñu mu def biir réew mi ah donte nag lépp yembut ah. élection locale ngay wax. élection locale ak élection législative yi di di ñëw donc élection yu am solo yoo xam ne gox-goxaat yi euh, am na avancement yu ci am euh, am na ay gàllankoor yu bari tam yu des ba léegi ci gox-goxaat yi euh, mooy communes yi waaye yaakaar naa ne tamit bu ñu joxaatee communes yi incha allah dina am jéego yu am solo ndax gis ngeen président Macky Sall décentralisation ba mu commencé waaye surtout lu ñu naan territorialisation des politiques publiques maanaam jël mbirum développement. yóbbu ko ci gox goxaat yi tey boo gisee PUDC lu mu def ci biir ci biir dëkk bi lu ci àll bi loo gisee Puma lu mu def ci àll bi boo gisee ay Promoville lu ñu transformé ay villes yu bëri yu mel ni Diourbel ñu ngi transformé Kaolack Sédhiou moom wax noppi boo ñëwee commune de Sédhiou wala commune de Marsassoum mais da ngay tiit da ngay yaakaar ne fan résidence nga nekk ndax tale ñu fa def euh, làmp ya ñu fa def canalisation ya ñu fa def boo demee euh, ci gox yu bëri yu mel ni comme ni nga waxee Kaolack boo demee Fatick boo demee euh, Matam yooyu yëpp dëkk yoo xam ne tey ay Promoville waaye tamit PUDC am liggéey bu am solo bu ñu def donc tritorialisation des politiques publiques tey ñu ngi koy gis xam ne sénégalais fu mu mënti nekk mu mën a sentir na ci biir Sénégal ci biir Sénégal la bokk donte nag lu bëri des na. waaw mais mais mais mais Fossar euh, euh, sociale bi dañuy gis ne euh, des na bu baax a baax tey yow yaa ngi wax ay PUDC yaa ngi wax ay PUMAC yu demee noonu mm. mais. Euh, boo demee ci kaw gi bëri na ay dëkk yoo xamante ni tey doo fa fekk euh, poste de santé am na dëkk yoo xamante ni tey dafa enclavé wu soxla na désenclavement am na dëkk yoo xamante ni tamit soxla nañ ndox yi soxla nañ courant yi soxla nañ sax ay école fi Sénégal toll ba léegi ay ay ay euh, jàng ñuy jàng si mbaar am na fi. loolu tamit ak li nga fi wax nii. loolu lan lan lan nga ci mën a wax. di damay dëgg li nga wax. dama koy dëggal ndax ñu ñun ci àll bi lañ dëkk danga xam nañ lu nit ñu di boo jëlee département de Goudomp par exemple bokk na ci mooy département boo xam ne foofu la abri provisoire ëpp ci senegal donc du ñun du ñu taxaw naan sénégalais yi lépp baax na lépp baaxut te li kooku yàlla rek ko mën waaye am na jéego ñuy def mais jéego yi tamit am na liggéey bu bëri bu desaat encore waaye jéego ñu jot a def ah day encourage c'est encourageant maanaam dal na xel jàpp nañ ne bu ko continuer di làbbali fas bi jàpp nañ ne dinañu am euh, satisfaction parce que euh, boo gi abri provisoire yooyu nga doon wax président Macky Sall 2012 ak 2020 tabax na 9000 salles de classe xam nga da nga naan bëri na maanaam euh, juróom juróom-ñeenti junni salle de classe tabax na ko waaye pourtant des na encore juróom benn junni salle de classe yoo xam ne ah. abri provisoire mais mais xam nga Fossar yéen dafa mel ni surtout président Macky Sall dafa mel ni fayul naar bi xoromam ndax moom soo xoolee ci àll bi yépp presque boo fa demee dafay moom moo fay gagné. Mm. mooy kaw gi ndax bu ñu waxee sax ñu ne Macky Sall euh, kaw gi lay gagné te moom li muy faral di réaliser infrastructure yu mag yëpp boo dee xool ci ci ville yi la koy faral di def ci euh, région yi nga xam ne ci biir commune bi comme par exemple tey boo doon doon région de Thiès tey. Mm. ñu ne la commune u Thiès. wala tudd depp région de Diourbel ñu ne la commune bu Touba. Mm-hmm. Euh, yu demee noonu maanaam kaw gi daal monde rural bi fan yi tamit dégg naa ñu wax benn projet boo xamante ni fii ak 2025 dëkk yëpp dañuy am dañuy dañuy am courant. ma jàpp ne man taxawaay bii état bi waroon am dëgg dëgg dëgg dëgg ci kaw gi euh, des na lu bëree bari waaw des na loolu mënuñu ko bañ waaye tamit am na jéego ñu ci def. xam nga nit ki tamit euh, non defuñu théorie. xam nga nit ñi am ngeen jéego yu ngeen def waaw waaw lu des bëri na. waaye tamit xam lu tax nit ñi euh, population bi malgré ça ñu wóolu président Macky Sall parce que dañoo gis loo xam ne mosutuñu ko woon gis xam nga bu fekkee ne da dëkk ci benn dëkk su ma jëlee par exemple damay wax lu exemple bu concret xam nga dañoo dem référendum ñoom benn village bu tudd Diareng ci commune de ba ñoom seen benn mbébét rek nañ amoon jëkk bu mag la macha allah euh, dëkk diine la tamit ñoom courant la woon. référendum bi dañu sanctionné foofu. dañu sanctionné foofu et pourtant ba may ñëw foofu di campagne dama leen ne yàlla xam na ne man sam bopp dem naa wax ak. Euh, le ministre de l'énergie wax nag le directeur de l'électricité ñu ne ma dinañ ko dañ boole nañ ko ci programme ci programme bi wax leen village yi tamit yu ca yu ca yu ca bokk mais booluñ moo gëmuñ ma woon waaye yàlla def na ñoom dañoo teg même pas une semaine après élection euh, après référendum bi rek matériel bi yegg si ñu ma ne leen gis nga xam nga bu fekkee ne yéen parce que da ngeen sànq di mu leen yaakaar ne parce que da moo tax li parce que lii liggéey boo xam ne la matériel bi di ngi départ départ na bi yàgg waaye euh, gis nga ñoom ba ñu gisee jaareñ am sàmbung am yàlla def na yeneen village yu amagul continuer du ñu wóolu lu tax parce que dañ leen ne bañ leen waxee ne gis ngeen yii egsi na ba fii bu ñëwee ba agsi ba fii xamal ne suba dina yegsi parce que mbir mi mbirum natt la ba mu leen natt mooy ma loolu suñu yaay di def rek mooy ak suñu rakk yi jigéen ñi maanaam may natt ñu ne nekk day ñëw natt suba nga teggi suba nga teggi ndax budget national noonu la mel ñëpp dañ ñu bëri nañuy natt waaye du ñëpp ay teggeendoo ndax dañuy natt bi doyut ñëpp day dañuy nattal ñëpp ay natt waaye bu subaa ah, Thiès mooy teggi bu gënaaw subaa euh, bunkiliñ teggi et cetera ba ñëpp mën a ñëpp mën a teggi ndax la ne ci ci ci ci ci kees bi matul matul lépp waaye bu ñu defee bu jàppee ne waa bunkiliñ xam nga tamit bu waa bunkiliñ bu ñu toogee ñu gis gudomp ne gudomp tegg na ah dinañ ne ah suñu mbokk yi dinañ gën a tegg donc mbir mi yaakaar la politique nag tam yaakaar la tamit addu askan tam boo koy boo koy euh, euh, boo ko jiitee di ko liggéeyal da ngay fexe ba yaakaar bi mu nekk fi tout le temps yaakaar moom moom lu ñu tubaab di wooyee espoir léegi nag le président Macky Sall euh, pourtant def na lu bëri ci ci ci ci monde rural bi boo xoolee 4000 pistes de production te 4000 pistes de production boo ko déggee mooy tali yu xonk yi ñëw yi ñuy wax en général. rang-rang yooyu mais rang-rang yooyu amutoon village yi pour yegg si yegg fa mu metti da gis. mais ba léegi am na. ba léegi bu baax sax. bu baax sax mais dañ koy continuer bés yooyu dañ leen di continuer euh, ba tax na. Euh, dama lay jox exemple bu ndaw rek bu fekkee ne da ngay dem ci benn village bu tundi mel ni Bussi Mballo dans la dans le département de de foo xam ne màdd madd dafa bëri mango bëri fa mais pour demoon fa mu metti fa lool ba tax nag benn camion moo fay ñëw kese ci ci at yëpp pour jël mango mango beeg madd bi te tax telle sorte que lépp yàqu foofu waaye alhamdulilah tey am na benn tali euh, rang mooy rouge yi tali bu euh, latérite bi bu dem ba foofu ba tax na tey Bussi Mballo boo fa demee da ngay gis camion yi fees fa dell parce que bu njëkk ba tubaab bi ba mu fay njëkk nekk yàgg fa lool euh, temps colonisation foofu zone trait gerte la woon. ba tubaab bi demee foofu boobu la foofu daanoon ñëpp fàtte village boobu mais président Macky Sall ba mu fa defee euh, euh, PUDC def fa ba tey tax na ba zone boobu yëpp. mango bu bëri ak màddu bu bëri bu yegg si fii Dakar foofu lay jóge foofu lay jógee parce que nit ñi am nañ tali yi bu ñu donc loolu mooy développement donc nag yu mel noonu bëri na xam nga dëkk bu amul woon courant nga andi fa courant dëkk bu amul woon forage nga am andi fa forage département de Bounkiling par exemple département de Bounkiling indépendance ba 2014 wax ma sax 2012 ba 2014 man amuñu woon sept forage yu mat waaye diggante 2014 ba 2020 président Macky Sall def na fa neuf forage xam nga ñu boo taxawee nga naan leen Macky Sall def fa dara da leen di et pourtant am na ñaari communes yoo xam ne xam ñaari commune nag yu amul forage commune daj bu lumb amul forage ñooñu keroog président Macky Sall ba mu leen recevoir dafa tiit ba mu déggee nañ am na ñaari communes yoo xam ne xam nga commune rëy na xam nga dañuy li ñuy ñaan sax mooy commune chaque commune mu am ñaar ba ñetti ñetti forage parce que forage bu nekk da ngay dina joxe juróom juróom wala fukki fukki village waaye dafa tiit ba mu déggee am na ñaari commune yoo xam ne foofu amul benn forage ba fa nekk donc loolu mu joxe instruction pour que ñu régler ko. Ah, donc loolu la PUDC ak yeneen programme mais xam nga tamit euh, Fossar dina ñëw ci euh, élection locale yi xaw nga ko juñ sànq mais est-ce que tamit du problème mu euh, nomination yi Macky Sall di def ndax tey dañu gis ne gouvernement bu Sénégal. dafa am yenn localité yoo xamante ni tey mën nañu ko tuddee noonu ñoo ngar daajoo post yu baree baree bari ndax dafay am foo xam ne fa ñuy décider maanaam ministre boo ko nekkee da nga nekk ministre de la république. mais tamit am na nu ko président doon doon doon décentraliser. Mhm. teg ko ci xam-xam nag. dinañ ko mën a wax mébét yi nga xamante ni tey moom la askan wi di jàmbat. Euh, loolu tamit euh, lan moo ci sa waaw muy laaj bu am solo. ndax euh, donte ne sax président Macky Sall ci ba muy defar gouvernement loolu joobeeram coobareem la moom la ko gouvernement bi moom la ko constitution jox. waaye moom ci boppam si lu muy décidé boo xoolee gouvernement yu mujj yi yëpp day fexe ba région bu nekk au moins dina am benn benn ministre waaye xam nga dafa am ay réalité yoo xam ne ci ci suñu département yi waaye ci biir département yi te ci biir arrondissement yeeg yooyu ba tax na comme ni nga ko waxee baax na fu ñuy tënkee mbir yi ak di ko séddalee ci réew mi nga am fa sa ndaw. gox bu nekk gis fa boppam fa boppam su ma jëlee suñu département de Goudomp tey fu may wax ak yow nii amul kenn koo xam ne noo nommé nañ ko foofu mu may wax ak yow nii. comme décret président Macky Sall. ba fu may wax nii ci département ba mu daj. fu mu toll nii ba instant bu may wax nii xam naa ñeen di leen jaaxal parce que dañ naan Fassal moom PCO ak yooyu waaye fu may waxee nii yooyu may wax ak yéen nii fu mu toll nii amul kenn keroog wax nañ ko ko ci audience ci ci ci ci audience bi ñu amal. ci euh, département bu Goudomp département bi yëpp amul benn décret. 15 communes 15 communes amul benn décret fu may wax ak yow à l' instant maanaam waxtu bii may wax ak yéen amul kenn kuñ fa ku fa am décret boo xam ne euh, ci APR la bokk. pour mu leer ci biir APR la bokk am na nag peut-être benn allié bu mu def conseil bu mu def euh, kii ni ñu koy wax chargé de mission waaye xam nga ñun loolu taxaw yorul département loolu départ yorul département donc lu mel ni 15 communes euh, mu nekk département boo xam ne euh, yàlla def na depuis 2012 moo fay gagné non Fossar yéen Macky Sall respecté wu leen non si non xamul tax gis nga Fossar mm-hmm. yéen Macky Sall non seulement respecté wu leen mais yéen ñay politigal Macky Sall tamit man jàpp naa ne respecté wu leen ñi nga xamante ni tey euh, ñoom ñooy askan wi. waaw xam nga du ma ne sax président Macky Sall respecté wuñu respecté nañu sax ndax keroog rek bu ñu bu ñu recevoir ne luñ bébit bii wax nañ ko ko moom ci boppam dafa dafa tiit ne loolu dina ko corriger kon ñu jàll li ñuy boo gisee ñu wax ko léegi nii c'est juste pour rappeler ko ko parce que tamit jiitu réew lu muy gérer daa bëri waaye baax na tamit ñu ko koy rappeler. Euh, ne département de Goudomp yàgg nañ ko jàppale te am na victoire yu ñu fay am département yu bëri amuñu ko euh, responsable yoo xam ne amuñu benn moyen mi même mennum fosaar bu amoon PCO di séddale lu ma yor rek tout un quinze communes xam nga loolu loolu sax mënul nekk donc par conséquent euh, boo amee responsable yu mel noonu waaw maanaam ñu jàppale la non Fossard euh, Goudomp dafa amul ay cadre wala lu xew. ah boo dee Goudomp nag cadre nag fa la fa la la fekk baax waaye yàlla dafa def nag xam nga dañoo nekk ñu am di dignité bëgguñu di tàllal loxo bëgguñu nekk ci yenn détails yooyu xam ne ñenn ñi ñuy bëgg ñu leen di tarbiyu ak yenn yooyu pour mën a am dara te malheureusement lépp ay lobby ak yooyu ñun nekkuñu si yooyu ñun dañu lu ñu gëm lu ñu gëm mooy lan euh, liggéey ñàkk ci riñu ba tax na. doo ñu dégg si ay coow rek mosoo dégg waa département de Goudomp ñu def ay manifestation parce que dañoo wàcc seen diw wala nommé ñu diw wala mosoo leen dégg ci loolu dignité nañuy demee. waaye nag ah mbir mi dafa am fu mu yem. d'accord mais am fu mu yem nit ñi nag doo leen pousser à bout parce que su boobaa bu démobilisation amee rek opposition am fa am fa te tey kenn mënul ñu bañ ne opposition. am na fa avance am na fa avance ah. am na fa commencé na fa am doole donte ñun gagné nañ département bi à am nañ fa majorité présidentielles yi jàll waaye tey ah boo xoolee résultat yooyu entre législative ak présidentielles yi xam nga ne opposition bi avancé na loolu lu koy waral nag mooy. boo ñàkk jàppale bu ñu war a jàppale. Euh, euh, moom ñàkk moyen kon donc ñun dañuy euh, jël suñuy poche mënuñu depuis opposition di jël suñu suñu xaalis. nekk ci pouvoir di ko nekk ci pouvoir bi tamit bëgg jëlaat encore xam nga suñuy propre moyen. mais mais mais Fassar tamit tey am na loo xamante ni tey. Euh, du stigmatisation du dara. mais fan yi dégg nañ fi euh, Fouta tampi te pourtant boo xoolee Fouta euh, ministère bi ñu denk wàllum justice. maître Malick Sall. boo demoon tey Abdoulaye Daouda Diallo yor ministère des finances. Aïssata Tall Sall ministre des affaires étrangères. ñu gis ne même Cheikh Omar Anne. njàng mu kaw mi. ak Mamadou Talla njàng mu digg doomu mi. ak yeneen ñoo xamante ni tey ay cadre nekk foofu. te ñooñu ñoo ngi wax tant pis mais yéen ñi nga xamante ni amu leen benn nomination yéen moom lan ngeen def. ñun dignité rek la ñuy jàpp dignité la ñuy doxee waaye comme lu ma ko waxee rek euh, doomu doomu aadama doo ko puus ba mu sës doo ko puus ba mu sës ndax euh, boo kii nag dinañ lay nduru euh, comme li nga ko wax ñàkkuñu fulla ñàkkuñu fayda suñu dignité rek moo ñu moo ñu moo ñu moo ñu tënk moo ñu tënk waaye nag lu gën a bon ci politique mooy démobilisation bu militants yi démobiliser surtout responsable bu démobiliser rek baaxut donc euh, joxe nañ ay alerte ndax ñun ba ñuy gagné département de Goudomp euh, département yu bari gagné wuñ ko APR gagné ko biir Sénégal te pourtant amuñu woon benn moyen ñii nga wax nii nga tudd nii du foofu rek. Euh, muy Fuutawoo muy muy muy Ling muy Louga Louga am nañ ñeenti ministre euh, boo demee euh, Ndakaaru fii. ministre ak ay direction lu jeex. Mhm. boo demee Fatick waaw waaw fa ay Fatick ay Fatick boo demee ay Kaolack ñooñu ñëpp. Kaolack Kaolack bëri na ay ay truc am na vraiment. boo gisee Ziguinchor sax la mu am ñun ñun amuñu sax un dixième donc baax na. Euh, ñu Diourbel sax am na benn ministre. département na benn ministre. am na ay DG. am na ay DG ak yooyu donc baax na président Macky Sall ñu koy ak ñu ko ñu ko wër euh, ñàkkuñu ay cadre bari nañu ay cadre euh, yoo xam ne servir nañu Sénégal. mais amu leen benn direction bu ngeen jiite aussi. actuellement amuñu benn direction bu ñu jiite. jiite ay cruise nanga wala. déet dara loolu yëpp amu ca loolu yëpp amu ca donc lu lu lu xaw a doy waar la déggoo lu ma la wax di loolu yëpp amu ci amul décret bu bu fa am. donc lu doy waar la donc ah. euh, lu ñu ñaawlu ko bu baax yaakaar naa ne rek président Macky Sall mu ñu recevoir il a deux semaines euh, dégg na suñu dégg na suñu kàddu ndax la ca des moom ah nit ñi tamit comme ni ñu ko waxee rek bu ñu la la xeexalee bu ñu la ci naaj bi tamit. nga nekkal leen ci kii nekkal leen ci kër jërëjëf euh, Fossar Souane mbokk yi moom la ñu invité ci seen euh, émission pencum réew mi ci rajo réew mi FM léegi élection locale yi euh, bala ñu ñëw locale yi ñu wax ci décision CEDEAO bi ci lu gàtt rek ndax yéen maître Abdoulaye Tine moom dafa porté woon plainte état bu senegal jàpp ne parrainage bi baaxul CEDEAO daal di wax ne Sénégal na supprimer li nga xamante ni mooy parrainage bi loi parrainage bi comme ni nga ko waxee sànq Abdoul Abdoul Mbaye ak ki nga xam ne mooy maître Abdoulaye Tine ñoom dañoo jàpp ne Macky Sall dafa waroon nekkatul sax ab ah, maanaam ab président bu euh, bu illégitime la. waaw décision euh, CEDEAO ba mu ko déggee man euh, jaaxal na ma lool ci benn fànn waaye ñi beneen fànn bi daf ma reelu tuuti ndax lu tax ndax boo déggee cette cour de justice bu je CEDEAO lañ ko bañ koy tënk lu tax ñu ñu li ko santoon mooy muy saytu ci mbirum ak fu doomu aadama loolu nañ ko sant muy xool muy saytu loolu ndax bu weesoo loolu ah, leneen lépp ci mbirum justice dañu ne justice yu nekk ci biir réew mu nekk mooy gérer boppam waaye ci mbirum ak yëlef doomu aadama moom jox nañ ko ah, ah, ay ay lenge maanaam pour que mu mën a saytu ci loolu waaye ba ñu xoolee plainte maître Tine mu déposé ko moom dafa ne dañoo léser candidat waaye lañu jaaxal mooy Euh, moom parti politique am ñoo ko moo ko moo ko moo déposé plainte boobu waaye la ñu jaaxal décision euh, justice cour de justice bu CEDEAO dafa ne ñoom boo xoolee million millions 600 mille sénégalais yu nekk ci fichier bi nga diviser leen par euh, ñetti téeméeri parti yu nekk ci biir biir réew mi kon du mot 1 pour cent looloo tax moom ci loolu la basé wu pour wax ne ah, kon ñu ngi xañ. ay ñenn ñi pour ñu nekk euh, yenn parti yi pour ñu nekk candidat mais ñuy rappelé waa CEDEAO ne du parti politique mooy nekk candidat nit mooy nekk candidat Sénégal fii ay coalition ñay ñooy investir ay nit donc du parti politique mooy ñëw nekk candidat moom ci boppam nit mooy doon candidat donc booy saytu da ngay saytu ci nit ki mm-hmm. ndax bu fekkee ne euh, euh, moom ci ci kii rek la basé wu ci parti politique rek la basé wu mais loolu tam moom def na discrimination parce que loolu la wax discrimination parce que candidature indépendante am na donc mu tax compté wul candidature indépendante yi kon moom ci boppam CEDEAO def na discrimination dis def na discrimination foofu waaye pour président Macky Sall contraire la def nag mooy lan fexe ba discrimination bañ a am ci mbir mi bu leen fàtte nii euh, parrainage ñan ñoo ko doon def mooy candidat indépendants yi ñooyu lañ doon wax yi dem leen uti ay 10 000 signatures président Macky Sall ne léegi lañ fexe ba ñëpp bokk ñëpp di ko uti loolu mooy tollele loolu mooy équité loolu la président Macky Sall def discrimination amatu fa donc ñëpp dem wuti léegi ñaareel bi mooy lan a ah, bu fekkee ne man euh, dañoo teg ay règles man nag Abdou Khadre Seck keneen ak keneen ñoo ci bokk yam ñu ne règles yi lii la ñu ànd ñun ñëpp dama war a respecter règles ñu ne na nga am 35 ans ah. ñun ñëpp ñu ne am nañ 35 ans ñu ne ñu léegi. caution bi nangam la. ñëpp ñu ne respecté ko. ñu ne léegi ku nekk na dem uti 1 pour cent ci sénégalais yi. pour ci ay signature bu fekkee ne yow wóolu nga ne yow candidat bu baax la sénégalais yi kii na 1 pour cent warul laa të. bonte donte bu fekkoon ne président Macky Sall dañ ko ne yow yaay candidat candidat yow sortant bi yow soxlawoo 1 pour cent ñu ne ah kon am na discrimination. waaye moom ci boppam dañ ko utloo daf dafa dem uti kon donc ñëpp bokk tollale euh, ci ay ak ak yëleef donc en ce moment amul benn violation bu fa bu fa mën a am donc moo tax CEDEAO ñu jaaxal ñu ñetteel bi mooy lan bu fekkee ne da nga bañ parrainage nga ne parce que dafa am discrimination kon war ngaa bañ ne caution tamit discrimination la ndax caution discrimination caution moo gën a garaaw ba parrainage ndax bu fekkee ne Abdou dafa am 15 millions man awma 15 millions ñu ne donc par conséquent man duma nekk candidat ci mbirum xaalis loolu discrimination boobu gën a garaaw. donc te nit doomee xaalis. waaw donc xam nga. kon maanaam vice versa la mën nga am xaalis. waaw doo amee nit mën amee nit doo am xaalis. donc par conséquent ñoom CEDEAO kon su boobaa ñoom war nañu wax ne loolu yëpp dañ ko war a dindi waaye war nañ dindi tamit ne kon âge 35 ans dañ ko dindi parce que bu fekkee ne man dama am 18 ans am. sama droit civique maanaam mën a voter lu tax ñu may xañ te jàpp naa ne man mën naa am mën naa nekk président lu tax ñu may xañ ma nekk président donc bu fekkee nit ki na la man nga bu ko xam-xam xam-xam donc logique boobu buñ ko bu demee ci logique gu CEDEAO kon dañoo war a dindi mbirum 35 euh, euh, euh, ans yooyu pour nekk candidat dañoo war a dindi caution dañoo war a dindi dañoo war a dindi dañoo war a dindi waaye boo gisee acteurs politiques yi toog waxtaan ci tënk éléments yooyu teg ko ci c'est pour pouvoir filtrer ndax. bépp kenn benn euh, je sais pas sama nen doom bàjjen jóge fële ñëw ne moom forcément euh, lekk laax bu neex rek mu ne xaaral ma ñoo nekk kan ma ñoo nekk candidat ndax Sénégal daa neex donc yooyu yëpp pour moytu ko moo tax ñu teg filtre yooyu ba yàlla def tamit sénégalais yi mën a am kan nombre de candidats boo xam ne lu raisonnable la ba ñoom seen bopp sénégalais yi mën na déglu programme yi xam. saytu leen ba xam ne kii de bu ma ko Abdou Khadir de suñu Abdou Khadir de su ma ko votelee dina ma kii ndax programme leer na wala programme Fossar leerut keneen ak keneen mu mun a am loolu waaye bu fekkee dañuy toog am 20 candidats 25 candidats loolu nag kan nga koy mën a saytu mënoo ko saytu waaw mais xam nga tamit euh, Fossar euh, Fossar li nga xam ne mooy parrainage bi euh, Sénégalais yu bëree bëri d'accord nañ ci parrainage bi mais dañoo jàpp ne Macky Sall si boppam président Macky bi mu koy def mhm. mbir mi dafa non seulement dañoo jàppoon ne dafa gaaw mhm. beneen bi explication yi nga xamante ni tey moo ci waroon euh, dese na si am ñenn ñi tamit njortoon ne dafa bëgg a gàllankoor ay adversaire politique ñenn ñi loolu lañ jàppoon aussi waaye est-ce que damay tàmbale ci benn mbir ne la euh, est-ce que dégg nga maître Tine mii déposé woon plainte bi fan yi moom ci boppam nee na parrainage baax na xam nga doomu aadama yëpp sénégalais weesul loolu nga yóbbu mbir mi réew mi ci CEDEAO jaxase ñoog CEDEAO ba tax CEDEAO dugal ko ci ay erreur ak dina noonu nga ñëw dellu siwaat naan nit ñi waa parenage baax na waaye liñ ko liñ koy liñ koy defee rek defin bi moo xaw a doy waar waaye ba ngay déposer plainte ci CEDEAO da nga ne parrainage baaxut xañ sa droit yow nga yàq turu Sénégal foofu ñëw dellu siwaat encore naan nit ñi waa parrainage baax na waaye nañ koy tegee moom nañu war a xool loolu ñu war a saytuwaat xam nga yëpp Sénégalais yi ngeen baal ma ci kàddu yëpp Sénégalais weesuwul weesuwul loolu du wax ne rek opposition dañuy foowee xelub nit ñi bàyyi nañ leen ngir yàlla nañ bàyyi Sénégal bu ñuy foowee ñaareel bi mooy président Macky Sall mënul xañ kenn. waaw ci ci ci ci waaw. waaw mais xam nga Fossar. Mhm. tey par exemple tey Sénégal bëri na ay parti politique yoo xamante ni wax dëgg yàlla euh, pour ñu am pour cent sax. Mhm. dafa jafe wala 2 pour cent. Mhm. te man jàpp naa ne wala nga ku ne nag am nga sañ-sañ peut-être dem si ay élection wala dem si jongante euh, laaj réew mi. mais ay deux pour cent ak ay 1 pour cent moom jàpp naa ne te élection ku fay dem avant ngay dem war na la leer ne yow lan mooy sa niveau. Mhm. ma ngi mel ni élève buy jàng rek ak 80 pour cent war nga xam ne boo demee si examen yi bac wala BFEM da nga koy jàll eh, euh, noonu tamit la mel mais yéen euh, xam nga ay 200 et quelques partis euh, bëgg a taxaw 200 et quelques candidats wala 100 et quelques candidats mhm. loolu tamit élection yooyu mënut a am fenn. Euh, kenn voté ko rek problème la wala foo ko fooy teg seen seen kii. amut amut léegi yéen seen responsabilité est-ce que du woon ngeen defaraat parti politique yi xam nga tey bala ngay ñu ne la bala ngay am parti politique di nga am nangamu nangamu signature. yu mel noonu est-ce que du doon li nga xamante ni moom mooy régler mbir mi ba nga xamante ni tey du ko jóg rek dem taxaw si créer sa parti politique. xel bu xel xel xel xalaat bu am bu am bu am solo la waaye bu nga baal ma rek bi rappeler benn mbir bi nga wax sànq euh, président Macky jugul rek teg parrainage damay fàttali Sénégalais yi 2016 ba ñu jógee ci référendum bi opposition ak majorité dañoo toog di waxtaan ci mbirum politique mi comme ni ñu koy defee après chaque élection wala chaque truc chaque euh, processus électoral bu kii dañoo amoon juróom-ñetti poñ. yu ñu tënkoon ñu d' accord ci. xam nga juróom-ñetteel poñ bi lan la woon. parrainage. d' nañ ci. 2016 laa lay wax Déthié Faye euh, astafurlah Déthié nu mu tudd Fall. Déthié Fall mii créé partem yàggut moom moo doon représenté réew mi parti réew mi ci waxtaan boobu moom signé na ko yeneen ñu nekkoon ci opposition bi signé ko ñoom ñoo bind loolu noir sur blanc huitième point bi juróom-ñetti poñ la woon juróom-ñetteel bi mooy lan parenage xam nga sénégalais yi il faut que ñu bañ a fa ñu ñu ñu bàyyi di ñu euh, ñuy nangu ñu leen di foofu ñuy fooyee seen i xel ñoom si seen bopp. ñoo ko proposé ñu def parrainage bi ñu d'accord ceeg ñoom 2016 laa lay wax te tey lu ma lay wax nii tey boo xolaatee boo xolaatee yéen seen archives yi ngeen xolaat seen kii boo leen doxalee interview yi ñu leen defoon ak articles yi ngeen defoon di ngeen gisaat poñ yooyu ma leen di wax nii yépp parrainage bi moo nekkoon juróom-ñetteel poñ mais si le président Macky Sall sukkandiku teg parrainage bi. defar loi bi bi ba ñu defaree loi bi ñu dem ak noonu euh, législative comme nañ leen làbbale ci législative rek ñu wëlbati ko encore suñu ne waat naa non non bi dugg na fii dëgg na fa gis nga dégg nga leen fan yi encore ñoom ñoo dellu soit fan 2019 bañ leen ngay ñu ne parrainage baaxul ñu dellu soit tey encore même opposition boobu naan waa parrainage baax na waaye il faut que ñu ñu xool lu ñu koy ñu koy donc moom laay wax sénégalais bi noonu ñu nangu ñu leen di nax ñoom seen bopp lu ñuy wax ni yëpp ci fichier audit fichier bi ñoom ñoo ko laajte woon ñu defal leen ko tey ñu tourné waat di wax leneen parrainage bi ñoom ñoo ko waxoon 2016 ñu tegal leen ko tey ñu dellusiwaat di waxaat di waxaat leneen mais li nga wax ci euh, xalaat am na solo ci naka la ñuy lu tubaab di wooyee rationaliser les partis politiques maanaam fexe ba wàññi ci limbu Euh, am euh, disons bu bu crédible bu bu bu dol dal xel bu xel mën nangu ci parti politique parce que ñetti téeméeri lu ëpp ñetti téeméeri parti ci bépp benn réew bu 16 millions 16 millions amul voilà te looloo bëri ci biir Sénégal maître Tine bii ngeen ni ñuy wax nii mosul dem élection c'est-à-dire ñoo xam ne dañu am sax zéro bi bëri ñaata candidat ñoo dem présidentielle ñi am ay 0 virgule 0 0 pour cent 1 pour cent a xam ñaata candidat la ci ëpp si moitié maanaam xaaju xaaju candidat yëpp duñu am duñu am 1 pour cent kon loolu te pourtant donte sax démocratie amut amut euh, amut prix waaye gafaka xale sénégalais maanaam état bi ci xaalisu sénégalais yi lay jóge si seen i lempo ñuy jël di organiser lu mel noonu 45 listes nañ demee noo dem ñoo dem en législative 2018 cinq ñii bu ñu leen bàyyoon kon ci présidentielle dinañ dem ay trente kii cinquante cinquante candidats xam nga booboo gën a garaaw encore donc élection locale yii xam nga dindi nañ parrainage waaye yàlla xam na ne tamit dinañ sonn trop ci élection locale yii ndax liste yi dinañ bëri euh, coow li nar a ne nekk cour waaye ku am xel tuuti rek xam nga ni yow coalition nga war a demee donc ah, normalement waaye li nga euh, wax ci proposition uh-huh. muy am lu am solo mooy parrainage bi tamit mën nañ ko teg ci création de parti politique yooyu parti politique bu nekk ñu ne la nangami signature nga war a dem uti ci sénégalais yi balaa ñu lay balaa ngay créer ngay créer parti mooy yaakaar naa ne ah, yow de war nga dem conseil ministre de l'intérieur yaakaar naa ci bokk na ci ay xalaat yoo xam ne war nañ ko def ndax ci dialogue politique bi mooy dialogue national dialogue dimension politique bi bokk na ci lu ñu leen sant ñu waxtaan ñu waxtaanee ci xool naka la ñuy rationaliser parti politique yooyu te yaakaar ñu ngi xaar seen. mais xam nga Fossard sax même yor xaalis rek warut a tax nga bokk ci ay élection ndax ay nit mën nañ la ngeem bu ñoo xamante ni sax mën nañoo bañ a nekk ay sénégalais wala nit bëgg a def euh, euh, promotion boppam léegi euh, mbokk yéen a ngi déglu réew mi FM seen émission pencum réew mi ñu dalal Fossard Souané moom mu bokk ci cadre APR yi. Euh, nekk nag responsable politique ci département bu Goudomp ci commune bu Karantaba léegi nag euh, élection locale yi yéen ba léegi nii opposition bi ñoo ngi wax ne euh, da ngeen ko ragal a da ngeen ko ragal a organiser lan ngay wax ci loolu. waaw yaakaar naa ne 2019 ba ñu génnee ci présidentielle bi ñun la gënoon a arrangé ñu dem ci élection élection locale waaye président Macky Sall bañ ñoom luñ koy reproché rek. mu nangul opposition bi lépp lu mu wax mu waxu maanaam audit fichier beeg yooyu ak yooyu mu nangul leen ko waaye 2019 yàlla xam na ne bu ñu demoon élection. locale locale ñoom xam nañ ne dañ leen di gagné ñu nangul leen ko. ñu dem yàlla def 2020 euh, mbas mi dugg si jaxase mbirumu dialogue national beeg dialogue politique bi ba tax na diiru presque at jotu ñoo def euh, liggéey bi ñu war a def 2021 euh, bi. gis ngeen presque lañ commencé euh, audit fichier bi te loolu yëpp opposition bi moo ko laaj ñun 2019 2020 2021 waxtu buñ ñu waxee ñu dem élection ñu dem élection ñu dem ñu dem élection amuñu problème boobu suba bu ñu nee ñu dem élection ñu dem élection waaye tamit dafa am benn mbir tey bu ñu pamti pamte woon mbirum audit bii mbirum audit bii bu ñu ko pamti pamte woon tey ñu yuuxu ñu ñu yuuxu Sénégal yëpp ne waaw dañoo dañoo dañoo bëgg a njuñ njaaj mbir mi moo tax bëggu ñoon kii mu mbir mi mu leer et cetera et cetera donc bul fàtte ne ñoom audit fichier bu weesoo audit fichier bi ñoom dañoo ne ñu auditer processus électoral bi boo déggee processus électoral maanaam commencé na ba keroog ba ñu paree ci élection présidentielle la ci topp ci euh, ubbiwaat list yi. Hmm. nit ñi mën a inscrire mooy audit beeg mooy Euh, euh, ñu war a inscrire bu fekkee dafa am erreur rectificative yooyu lépp lu war dem ci mbirum élection ñoom nee nañ neen ko auditer loolu tamit loolu tamit dafa am diir bu muy jël expert ñu jël internationaux yi ak waa direction générale des élections nee ñu yéen politique yi toog leen ngeen seetaan ñu ñun dinañ leen proposer ci ñaata euh, temps nañuy liggéey loolu ñu def seen proposition ba ñu defee seen proposition ne ñoom ci diir bi ñu war a liggéey waaye tamit nit ñi war a ñëw inscrire waat. ñu war a bëgg ñu war a ins ñoom 18 ans war a inscrire wala ñoo xam ne dañoo bëgg a modifier fu ñuy voté ji ñoo ñëpp ak lan lu ñu naan euh, période contentieuse maanaam bu fekkee ne liste bi ñu ko publier dañuy bàyyi benn diir boo xam ne nit ñi dañu dem xool ndax sama tur am na erreur rek amul erreur ak yooyu yëpp xool ak yooyu di vérifier loolu ba balaa ñuy publier liste yi encore définitivement ba nit ñi di candidature yi di déposer seen candidature et cetera loolu yëpp dafa am temps bu muy jiir bu muy jël ñu ñu donc par conséquent lu mën a nekk mooy février experts yi ñoo ñu ko wax waaye opposition bi ne non non février mën ta nekk nañ ko nañ ko yóbbu de lañ ko kii décembre 2021 euh, ñu bañ ciy génn président Macky Sall ne leen man su ma sañoon waxoon naa ne ko depuis daaw bu ñu génn décembre 2021 waaye yàlla def na yàlla def na ba expert bi ñu tënkee ñoom nee nañ ñu ñaan leen naka na ngeen di def ba compressé maanaam wàññi diir bi ngeen di liggéey ñoom ba ñu wàññee ba wàññi ñoom nee nañ janvier nañu mën a nañu a def élection nañu mën a def élection yi waaye yaa xayti ku nangu nga mën a def ku ku parce que élection locale bi am fin 2000 décembre lay lay am mais fin 2000 décembre fin décembre noonu ak décembre boobu màggal Touba ci la nekk hmm. opposition bi xam nañ ko ñoo la ko gën a xam lii yëpp tout lëndëm sénégalais yi la ñoom ñoo la ko gën a xam xam nañ ne période boobu day metti nit ki naan da ngay dem da ngay campagne ndax kenn du la tal ñoom ñoo la ko gën a xam waaye ku nangu mën a nangu décembre nga war a mën nangu janvier ndax weer moo nekk seen diggante. d'accord jërëjëf euh, Fassar waxtu wi léegi tey mu jeex te li si des dafa xaw bari léegi ñu wax ci euh, découpage euh, administratif bi président Macky Sall commencé ak département bu Kër Kër Massar mais gis nañ ne coow juddu na ndax waa Mbambilor démb amal nañ manifestation nee ñu duñu nangu euh, di dagg si seeni seeni seen village di ko di ko dugal fi nga xam ne mooy Sangalkam waa waa waa waa euh, waa kii euh, waa Jaxaay ñoom tim mer nañu lan moo ci sa ndax ndax Aliou Sow mi fi nekkoon ancien ministre décentralisation Ablaye Wade. Mhm. nee na mbirum politique moo ci làqatu yow lan moo ci sa xalaat. yaakaar naa mbirum politique moom Aliou Sow ba muy nekk ba muy nekk ministre ñoom ñoo laloon mbirum politique. ànd ceeg Ablaye Wade yéen a ngi fàttaliku lu ñu def sàngal kenn fàttewu ko moom Aliou Sow ñëpp mën nañu wax sauf moom ndax euh, xam nañ yaa ngi nit deewoon deewoon na ci sàngal ndax ndax moom ñoom jëyoo yooyu ki maanaam décision ñu jëloon pour lan éliminer euh, Omar Gueye bu fa nekkoon PC PCR euh, au niveau de sàngal ba nit faatu fa waaye te loolu mbirum politique rek la woon xam nañ sàngal kaam nu mu meloon waaye boo jëlee sàngal kaam nu mu tolloon Bambilor bokkoon ci biir sàngalkaam nga jël Bambilor def ko commune jël lépp lu nekkoon ci ay dëkk ci biir ci biir Sangalkam nga jël ko dugal ko ci biir Bambi Bambilor pour bàyyi Sangalkam moom kese ak ak njaxiraat ñu nekk comme ñu nekk comme comme commune kon euh, loolu moo nekkoon élément politique politicienne. waaye président Macky Sall mais est ce que de compte moo tax Omar Gueye moom ko def Omar Gueye ko def te bu koy def tam day jaar dafa wax lu leer mu ne. lan la bëgg dafa bëgg day territoires cohérents et viable boo léegi cohérent maanaam loo xam ne. yenu na maanaa waaye tamit bu ñu nee viable maanaam mun na dund. mën na dundal boppam donc. am rentabilité am rentabilité waaye boo xoolee xam lu garaaw man euh, chaque week damay dem Kër Njaayloo Kër Njaayloo ku xam zone boobu boo wàccee autorite bi daan da ngay dugg di dem Sangalkam wala Bambilor Kër Njaayloo ngay njëkkee mooy dëkk bu njëkk ba. kër njaayloo ngay dugg nga am kunun sa si sa gauche si sa gauche kunun tamit bokk ci bambiloor waaye pour dem bambiloor ci boppam da ngay romb Sangalkam doo ko dem bambiloor xam nga loolu yenuwut maanaa donc président Macky Sall ne la ñuy rectifier loolu incohérence la maanaam njaxiraat lu lu astafila euh, kër njaayloo euh, kunun ñaari kunun yi ak dëkk yu yoo xam ne ci tali bi lañ nekk xam ne balaa ngay yegg moom ñoo nekk moom ngay ñoom ngay jot avant ngay yegg Sangalkam dëkk yooyu yëpp ñu boolelaat leen ci Sangalkam lañ mosoon a bokk ñu bàyyiwaat ñu dool dool delloo leen Sangalkam nee naa lu weesu Sangalkam dëkk yooyu nekk nekk ñoo ñooñu ñu bàyyi leen biir bambiloor ndax da ngay romb Sangalkam doogu dugg biir dugg biir Bambilor loolu yenoon na maanaa léegi yow tey boo soxlee Kër Ndiayloo bu ñu soxla woon këyit dañuy romb commune da ngay romb mairie Sangalkam continuer tali bi dem ba dawaat encore ay 10 kilomètres pour egg pour egg Bambilor yéen a wut maanaa léegi politique politicienne boobu ñoom Aliou Sow tegoon ak Ablaye moom lañ dindi teg ko ne le président Macky Sall ne un territoire naa comprendre waa Bambilor surtout mairie ba Ngagne Diop euh, député maire ñu ngi koy ñaan mu delloo ci xelam mu delloo ci xelam ndax moom vivre na ak Omar Gueye lu bëri ci situation boobu politique politicienne bi waaye bu mbir demee nii moom xam na ne nii ah yàlla def na tey moom Bambilor moo nekk maire Bambilor waaye xam na ne moom incohérence territoriale am na fa nañu bàyyi politique politicienne bi dama ko comprendre ci moom ci ay waxam mooy ressources yu ñuy am maanaam xaalis bi ñuy jël pour mën a doxal seen seen seen seen commune li ci ëpp dañ koy yóbbu Sangalkam non waa Sangalkam parce que dëkk yu mel ni ay Kounoune ak yooyu foofu la xaalis bi fa lay fa lay fa lay génnee waaye tam nit ki doomu aadama bu fekkee ne maire nga dangay fexe ba dëkk bu ne mën a am nga créé fa loo xam ne suba dina génne koom-koom boo xam ne mun a ndax lu tax waa Bambil waa Kunun di dundal waa di dundal waa waa waa waa waa Gorom or que Gorom war nañ ko mën a defal ay mbir yoo xam ne ba tax na Gorom seen boppam mën a dundal Gorom waaye war waruñu bàyyi nekk di am nekk ci ay dépend nekk ci ay dépendance donc looloo am solo euh, nañu. Euh, delloo xel yi bàyyi manipulation bi euh, cohérence bi ñuy def euh, ci découpage bi dafa am solo boo gisee Kër Massar ñu def ko département ñu jël yëmbal nord yëmbal sud bu ko cee booleeg ci département. Kër Massar ak Jaxaay loolu lu cohérent la ak ak mm, Parcelles Assainies. Parcelles Assainies bi man sama kër yaay ak ak Jaxaay ñoo jaax jaakaarloo mm. temps bokkuñu commune bokkuñu sax département. ñuy saytu ñu naan suba ñu naan non fii lañ bokk ñeneen a fii lañ bokk léegi président Macky ne nee na rek lañ loolu yëpp léegi jaxaay ak Parcelles Assainies nga xam ne ñoom ñoo takkoo euh, Kër Massar ñu boole leen biir Kër Massar doo romb nag wax dëgg yàlla nga romb Kër Massar nga romb Kër Massar naan da ngay jël jaxaay di ko yóbbu. di ko yóbbu di ko yóbbu di ko yóbbu Tëngéej tamit. jërëjëf euh, jaajëf euh, Fossar Souane ñu daal di wax tamit ci li nga xamante ni tey moom mooy ndaw ñi. ak euh, ñàkku xëy gi nga xamante ni tey euh, nemmeeku nañ ko ci réew mi président Macky Sall sax moom euh, na nee na Sénégal boo jëlee téeméer boo jël juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar yëpp ay ndaw lañ. keroog wax na ko ci bis bi ñu jagleel liggéeykat yi mais Sénégal gis na ne ñàkkum liggéey bi taxaw na sax président woote li nga xam ne mooy conseil présidentiel bi yow lan moo ci sa xalaat en tant que jeune. waaw xam nga ñàkkum liggéey bi du Sénégal rek àdduna bi yëpp la waaye ñun lu ñu soxla mooy sénégalais bien entendu Euh, am na jéego ñu ci def waaye jéego yi néew na par rapport ak lu nit ñi soxla lu ndaw yi soxla. li wàcc marché waaw li wàcc marché parce que boo xoolee nit ñi dañu naan waaye ni ngeen fa promettre woon ni ngeen ñu diggoon defu leen ko lu ñu diggoon def nañ ko ba rew ko waaye <laughs> luy dugg si ci marché bi moo ëpp fuuf nu ñu ñun lu ñu diggoon maanaam 500000 emplois la président Macky Sall waxoon ci diggante juróom ci juróom-ñaari at mat na ko ba dépassé ko. ndax boo fekkee ne emploi formel rek la maanaam lu euh, inspection des travail yi enregistré mat na ci mille 000 boole boolewuma ci liggéey yu ñu créé ci projet yi ñu xam ne financement yeeg yooyu boolewuma leen si sax waaye bu fekkee ne yow at bu nekk da ngay créer 150 000 emplois waaye ñuy ut si emploi mat 200 000 voire cent 000 kon yow day ñu yow la nga créé. day mel ni amul résultat amul résultat. te yàlla xam na ne am na li nga am ñu jéego yi nga def waaye pour que résultat yooyu ñu maanaam deux cent mille wala trois cent mille yooyu di dugg si chaque at chaque at nga mën leen a nga mën leen a absorber maanaam ñu fexe ba ba ñu am dara dafa am ñaar ba ñetti mbir yoo xam ne il faut mu am maanaam ñu développer industrie bi yokk tamit taxawaayu artisanat waaye tamit mooy entrepreneuriat mooy mooy mooy jël financement yi jox ko tàggat xale yi jox leen ay financement ci secteur yoo xam ne ñoom yoo lañ bëgg Euh, liggéey secteur yoo xam ne tamit dina andi koppar boo xam ne ñoom dinañu continuer seen activité industrie boo déggee industrie mooy usines yi usines yi ñoo mën a absorber nit ñi ñu bëri moo tax Sénégal président Macky Sall at yi weesu nit ñi dañu comprendre politique malheureusement ñun si suñu bopp ñoo ko dul ko expliquer Sénégalais yi mu leer waaye boo gisee président Macky Sall di rey di xar tànk tubayam defar tali yi muy defar yokk poor bi wala di créer ay port yu boos yokk bi di defar ak yooyu yëpp c'est parce que loolu la ñuy wax que attractivité maanaam da ngay fexe ba nit ñi bëgg ñëw Sénégal yor kopparam wala sénégalais bi fi nekk jël kopparam bëgg ci investir parce que bu fekkee ne damay ñëw tabax usine Fatick te fekkee ne tali Dakar Fatick baaxut wala day am embouteillage bu am solo man loolu investissement bu may perte xaalis la duma ci nangu investir moo tax président Macky Sall di def ay autoroute di def ay raay yi ngay digg TER yeeg yooyu yëpp c'est parce que bu fekkee ne waa banlieue ba. bu fekkee ne pour fekk ma ñëw liggéey si Dakar il faut ma def deux heures wala trois heures de trois heures de temps pour yegg sama xër sama bërëb liggéeykaay pour loolu problème la président Macky Sall ñoo defar TER bi pour lan pour que moins de trente minutes ma jugee yegg jugee Caaroy yegg yegg yegg fa may bërëb liggéey kooku ku am invest bolam ko alal boo xam ne dafa bëgg a investir bu jigéey loolu gisee loolu ne ah nit de mën na jóge Thiès ñëw liggéey si Dakar en moins de une heure mu yegg ci biir Dakar ah kooku loolu baax na kon samay liggéey ñu may liggéeyal su ma jëlee ay employé foofu du ñu am perte de temps ndax heure bu nekk xaalis la lu mu la lu euh, lu anglais yi naan time is money donc tax na ba ñoom tamit ah ñu ne ci boobaa bàyyi ñu ñëw Sénégal parce que transport yomb na fa nit ki mun nga dem fu ngay dem rapidement liggéeyanti li ngay liggéeyanti employé mën nañ ñëw ñibbi si ñi liggéey si à temps ñibbi à temps te duñu sonn bu fekkee ne tamit dangay ngay wàcc si liggéey 17 heures wala wala 6 heures wala 5 heures wala 6 heures nga war a ñibbi sa kër nga la def 2 heures 3 heures de temps coono ba ngay daj bu yeggi sa kër nga fekk problème famille yi nga fay fekk nga war a ñëw xëy siwaat sa xel du dal coono boobu su boobaa si sa liggéeykaay doon moo tax président mag Sall teg loolu yëpp ba pare loolu nañuy wax préalable yi boo tegee préalable ñooñu ñëw liggéey loolu nag ñoo ñëw investir Sénégal waaye loolu du tax ñu war a tàggat xale yi ndax for formation bi dafa dafa bëri parce que tamit nit ki pom buy ñëw investir Sénégal na fi fekk koo xam ne qualifié na fii réew mi ngeen réew mi FM bii ngeen nekk ni groupe bi seen groupe bi yëpp bu fekkee ne euh, euh, euh, président Manick bu fekkee ne amutoon fekk fi woon Sénégal ñu am formation ñu mel ni yéen tey du leen jël parce que danaan ñi amuñu formation amuñu qualification pour pour mën a su boobaa kër gi di dox donc boo gisee kër gi dox c'est parce que dafa am fekk na fi Sénégal ñoo xam ne am nañu comme qualification donc noonu la tamit usine yeeg ak yeneen sociétés yi pour que ñu mën a investir il faut ñu fekk fi qualification ah, yooyu bi ci tollee nag mooy président Macky Sall financement yii mu teg mboole ceeg DER ak yeneen euh, fonds jibik yooyu am na jéegoo ñuy def waaye 60 milliards yu ñu leen jox néew na ci besoin Sénégal parce que ku Euh, am demande cinq cent mille sénégalais ñoo déposé pour am financement DER cent mille rek la ñu la ñu la ñu jote la ñu jote financé donc des na quatre cent mille ñu war a financé ci yaakaar moo tax président Macky Sall jël quatre cent cinquante milliards teg ko ci table bi pour ñu former ndaw ñi jox leen euh, tàggat leen euh, waaye itam jox leen financement. ñu mën a liggéey. jërëjëf euh, fi la ñu yem si waxtaan wi bëri woon ay ponk sax mais waxtu yi jeex na ñoo ngi lay sant di la gërëm. jërëjëf sëñ Abdou ñoo ngi lay bu baax di la di sant waa rajo bi yëpp di sant tam seen seen auditeurs yi tamit di leen wax ba beneen yoon jërëjëf. jërëjëf Fossar Souane mbokk yi moom la ñu invité woon tey mu nekk nag bokk ci cadre APR yi nekk responsable politique ci département bu Goudomp Abdou Khadre moo nekkoon ci cadre gi Mamadou Diaw ci wàllu machine bi seen émission pencum réew mi la woon jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm